mané mané nga yor leen damay ñibbi wa lan ngay ñibbi dañ la def kër ga dara wala lu xew ma munta xam dia ba paré ñëwaat di dëkk ki nit xawma loolu ya dama constater depuis bu ñuy wënante sama yaay mo ngi dund ak mo ngi dee gis nañ ko fi gis nañ ko fa ba batay nekko ah xadi da nga changer wa ayo man awma ben problème te kuma neex nga nak ndeysaan xadi sama xol set na vraiment <laughs> merci nit mom mbax rek ko war soit danga may fontoo wala laal. ah fontoo ma la de damaa xam ne Cisco boo doful tamit yaa ngi waaj a dof dof bu bees. yow Pa lan moo tax nga xool mu neex la rek nga bañ ma. déedéet tanta bañ de xam naa dafa fekk bu sa jikko moo ko neexul. naa fi mbay naa fi mbay kii de waaye te dut de. xadi ci beneen facette bu bees tàkk yow nag maîtresse Ozé yow laay njëkk a sa ndey. xale baa ngi sol yëre bu zone. waaw yére bu mboq la moom la ko yaayam solo. waaw ak ju mel nan. xaw ma ju mel nan la dëgg yàlla. sama deewu yaay ji bis boo ci tekkee lu tolloog zéro virgule cinq pour cent di ko diggaale ak man te boobaa dootoo amati doom. ni ko ci mbaaroo ñu ñule ah Ama Mbaye xanaa bu ngeen amee gan war ko mën a accueillir